waaw ci wolof nag li ma ciy wax moom daanaka mooy mbégte dafa am tey suñu bés bi mbégte bu rëy rëy rëy ndax kii nga xam ne tey moom lañ àndal dafa yàggal liggéey bés bi te wolof nee na yàlla du fay wax bàyyi jëf kii ba mu commencé liggéey booba nekkul sax ministre yàlla di ko suturaal mu ànd ak jigéen ñi yàgg ci développement nag di ci liggéey suba ak ngoon guddeeg bëccëg ba yàlla def tey jii mu nekk ministre nekk ministre di ci liggéey di ci dox président Macky Sall nag jaane xawul de xam na ki muy choisir de gis nga ki mu choisir nii xam na li tax mu choisir ko ndax xam na ne vision bi nga xam ne moom la dëgmal ci plan Sénégal émergent bi lim ci bëggal ndaw ñi ak jigéen ñi kii moo ko ko mën a doxal moom nag ñun mun nañ koo jaay de macha allah ñun ki ñuy jaay du lamm ndax bio amul engrais amul leneen moom bio la naturel la moom moom ñun dañ commune de référence moom lañ bëgg waaye nag dinañ ko am ndax une dame de référence avec un staff de référence avec des jeunes de référence avec des personnes âgées de référence mais kooku lu muy mën a am jàmm rek lay am ndam li rek ca kaw ca kanam waaw tey tey ñi ngi fii ci liberté 6 gannaaw bu ñuy defee liberté un liberté 2 liberté 3 ñëw nañ fii ci Liberté 6 Liberté 6 nag dafa am màndarga yu bari yu mu am benn bokk na ci quartier yi gën a mag ci commune bi moo fi ëpp bureau de vote donc moo gën a concentré ay population ñaar dafa am ay personnalité yu mag ay ressources yoo xam ne dañu dëkk fii biir Liberté 6 ay kilifa yu mag yu fi dëkk kon tey bu ñu ñëwee ba Liberté 6 nga xam ne buñ doon wut échantillon maanaam buñ doon def sondage ci mbir mi nu muy demee résultat bi ñuy am fii mën nañ jàpp ne moom la ñuy am keroog le 23 janvier te résultat bi ñu fi am wax dëgg yàlla kër yi ñu jaar yëpp ñaanal nañ ñu wan nañ ñu seen cofeel wan nañ surtout seen mbégte ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko bi ñu commencé ba léegi te du tey am na ay at ci ginnaaw ñi ngi taxaw ci wetu population yi kon Liberté 6 dafa gën a dalal suñu xel Liberté 6 dafa gën a confirmer ne population déferlante bi nga xam ne population yëpp a ngi koy wax ci taxawaayu Benno Bokk Yaakaar fii daf ko dëggal beneen mbir bi nag mooy euh, jàpp nañ ne élection yi ñun suñu taxawaay jamono ji mooy gën a ñaax askan bi ci ñu lëkkale élection commune bi ak élection ville bi ndax euh, muy commune bi muy ville bi dakaar tey dafa nekk capitale ci Sénégal dakaar ñi ëpp ci réew mi fii la ñuy yeewoo dakaar li ëpp ci koom buy tabax réew bi fii la nekk kon ñun li ñu war a def pour dakaar mooy dakaar nekk dëkkuwaay boo xam ne am na jàmm am na salaam am na liggéey nit ñi mën nañ fi maanaam yëngu-yëngu ñu am ay opportunité loolu nag ñun waa benn Bokk Yaakaar ak suñu kandidaa ab lay Sarr dañu taxaw ci loolu moo tax day baax aussi ñu mën a gën a ñaax askan wi ci seen intérêt ci lëkkale loolu yëpp ngir njaboot gi lëkkale loolu yëpp ngir réew mi kon loolu dal na suñu xel li gën a dal suñu xel nag mooy dañu ne ñun dama ñëw fii fekk population bi ne ma yow yaay candidat bio candidat bio boo xam ne amul engrais chimique amul dara lu nocif amul dara luy gaañ kon lépp loo xam ne mi ngi fi di gaañ ñun dañu fas yéene nañ ko jël génnee ko ci biir Sicap Liberté moo tax may ñaax suñu moroomu yeneen candidat yi nañu dal ndax Sicap ñoo ko bokk bu élection yi jeexee dañuy toogaat nekk ay xarit wàccaat ci wax terrain bi di foo di ree di waxtaan kon élection bi buñ ko ñaawal ndax ñun bu ñuy taf suñuy affice dañuy fekk ku taf affiche am ñëw nañ ba si suñu buntu siège taf fa ay affiche weer a ngi nii kenn laalu ko bu xotteekoo sax ñu ñëw defaraat ba mu baax taf kon nañu bàyyi affiche yi ñuy yàq suñu affiche yi nga xam ne dañuy bàyyi ba une heure deux heures du matin wër commune bi di ko xottate nañ ko bàyyi nañu def campagne bi ci jàmm ak salaam de toutes les façons ñun du taf mur yore mur yorewuñu yàq affiche yorewuñu li ñu yor mooy jëfal askan bi kon bu fekkee ne dañu bëgg xotti affiche yi nañu ñëw dindi li ñu jëfal askan te li ñu jëfal askan bi nag action rek ko koy faj nañu action suñu mënul action nañ ñu bàyyi ñu action te bàyyi suñuy affiche jërëjëf